ndax dimanche bi moom oto duñ ko may mu jugee ci ab région di jëm ci ab région yéen ñi war a wotee ci région yi jël leen seeni matukaay président de la république daal ne man le 2 avril bi ma waxoon du ma ci génn kon bu ñu demee ci deuxième tour it coppite dina am de waa forum du justiciable daal ne ko président même bu deuxième tour amee ñu ngi lay ñaan nga prolonger sa wax jooju waaye président Nourwood ku ci des de campagne électorale bi daal boo bëggee dégg mooy candidat yi ku ci wax ba pare nga ni kii aw làmmiñam dañ cee laalu lem waaye ku ñu convaincre loon ba tey moom dootuñ la gaaw a convaincre wallahi wallahi Air Sénégal nee nañ dinañ dolli ñaari ropalaan yu ñu luwee ci Allemagne ngir dem beeg dikk bi mën a gaaw ci ñi dem mag aji Makka euh, Sénégal dana football Congo foofa ca Amiens ca France te Aliou Cissé nee na bii pa moom li ñu daloon dootuñu dal amatul pardonné benn erreur walaay walaay xanaa jeexale inna lillahi wa inna ilayhi rajiun doomi maam Abdoul Aziz Dabakh ja ñu koy wax maam euh, Ousmane Sy génn na àdduna yàlla na ko yàlla yërëm ta yàggal saraxam ci suñu yoxo ak euh, Mohamed Yatta Saa yi nga xam ne moom moo jiitoon ak waa Teera te bëggoon a nekk président de la république bu Sénégal waaw mbir yi daal noonu la mujj tëddee kon yàlla na yàlla may kenn dal ak jàmm sama gaay yi bi tey mooy last kaw ak géew ku la convaincre